aja Zomb waaw ñu ngi fi Sénégal gi tey neeran foofu di tagg fi tagal mbir un million ci animation bi Mbayang Loum laak Palo ñu ngi fi nag fekk champion bu mag champion ginnaaw bi ñu leen nuyee ba pare nga président xam kan la man Demba laa tudd Demba Ndaw dëkk Soudiane Ngangu waaw ñëw seetaan si lamb ji lan moo waral teewaay bi fi tey Demba man teewaay bi lu ko waral mooy lamb rek lamb moom dama koy dund quoi dama koy dund dama koo xam moo waral sama teewaay bi tey fii si arène ah ma ñëw seetaan si mbër yi fekk fi fekk fi ay mbër waaw. noo gisee lamb ji tey bi noo ko gisee. non lamb ji moom vraiment neex trop parce que lamb boo ñëwee fekk fii ku mel ni Cheikh Tidiane Niang ak Boy Faye ak Bulldozer ak seen yu bari ñi ak Paul Mante ak Sefa Diaw ak Kane Sadam vraiment waaw ak Saka Dior numéro 2 vraiment lamb boobu moom vraiment mun na neex waaw mais. Euh, yow jamono bi ngay bàyyi beuy rek dafa melni jotagu euh, jotaguloon bàyyi beuy lan mo tax nga teel a man lu tax ma tela a beuy moy xam nga rek lamb mom ak telok telu ñu and quoi man dama defon sok motax ma tela a bàyyi ma tela a beuy mais lamb mom vraiment bo xoolee bo xol mom vraiment amna xolal amna lu ma ci def quoi wa parce que fini vraiment dan na fi champion bu nek champion bu nek dan na ko fi Adrien Senghor fi ak stade ibamar ak àll bi yëpp waaw. Euh, jamono bi ngeen di bëree ak jamono bi léegi amna amna changement amna différence ci lamb ji. waaw amna différence amna différence trop parce que man damay seetaan lamb ba joy parce que bo xolé xoolal da ngay seetaan ko ba bo xamné do xam ñaari mbare ya lu ñuy bëree wa da ngay ko combat bo dem dal bo wax né li mom vraiment bu yagge sax dootuma seetaan lamb quoi wa parce que mbër mom dara boo si nekkee da nga koy gëm ba pare fonk ko xam li nga bëgg xam fu mu la mun a yóbbu boo duggee si biir nga def fula ak fayda boo daanoo ku lay seetaan xam ne def nga lu la war mais nekk si lamb kenn xamul ndax mbër nga kenn xamul ndax da ngay contact kenn xamul li ngay def si lamb ji moom vraiment loolu moom ñaawlu naa ko si mbër yi quoi waaw. ñu xool ne lamb tey la gën a bëri xaalis te tey lamb di gën a sagane lamb ji lan moo lan moo waral loolu. waaw loolu mooy nekk si dara rek nga xam moo loo doon nekk si dara. te respecté woo ko parce que lamb fu mu nekk tey boo si nekkee xam li nga bëgg respecté sa bopp bëgg sa bopp vraiment fu mu la mën a yóbbu rek boo ko xamoon boo si duggee vraiment di nga ko jàpp ak sa ñaari loxo ak say mbokk ak say waajur ak say xarit ak say dëkkandoo waaw parce que du caaxaan quoi boo si nekk rek jàpp ko boo boo ko bëggatul ko nga dem seeti loolu mooy lam waaw. li xew ci lamb ji léegi. mooy règlement bi ak seen jamono loo ci mën a ñu ci mën a wax. waaw règlement bi léegi moom boo ko xoolee boo xool vraiment da sincère ba ëpp dafa yomb ba mu ëpp quoi waaw njumte moom du ñàkk si lamb ji mais arbitre yi war nañ xoolaat rek xam ne sport bi moom ñun ñëpp ñoo ko bokk mbër yi amateurs yi supporters yi ak ñi nga xam ne sax mun na bëgg na ñoo ñëw te mënuñoo ñëw ñun ñëpp ko bokk waaw mu jaar yoon rek ku nekk rek boo defee du la rek. règlement buñ ko tegee day yomb quoi waaw. ñu xool seen jamono ñi doon bëri presque ku ci nekk benn siga mbéykat du am fekk da nga bàyyi lamb mais dañu gis bëri tey tey boo àndee kii bu soobee nga nag keneen bu soobee nga nag keneen lan moo war a diggante ak siga mbay. waaw loolu yëpp mooy mooy lu la wax léegi rek gis nga dara boo si nekkee gis nga lamb boo si duggee lamb dafa doy waar moo tax boo si duggee rek wutal benn anando si kam fay boo xam ne kooku kooku nga war di àndal. bu fi nga yegg si lamb ji mbaa fi nga yem lamb bugul chaque jour nga changé lamb bugul loolu parce que parce que ki ngay àndal chaque jour moo xam sa cumukaay moo xam sa bëre moo kooku boo amee combat mën na laa conseiller am na foo xamee boo fa egg mbër rek xam na ne moom bu tolof tolof amul jël am na moo tax boo amee benn sigamba rek da nga ko war a jàpp bu demee boo am tolof tolof sax jour boobu na la jaral nga bañ a ñëw si lamb ji toog dem entraînement waaw loolu laa xam si mais est ce que xale yi bëri léegi ñu ngi jege ñu ngi leen di jege yéen ñi nga xam ne bëri ngeen ba bàyyi bëri ndax ñu ngi leen di jege xale yi bëri léegi. ah non non parce que buñ la jege boo leen joxe conseil yi deux fois trois fois dootuñ la jege parce que parce que gis nga man mii di wax ak yow dama doon jóg di dem entraînement ba ñëwaat dama du set quatre heures du matin laa doon jóg dem entraînement ñëwaat neuf heures ma dem salle ñëw toog ba kenn du ko xam waaw moo tax ngi gërëm Ibrahima Diabé di gërëm Adama Diouf ma def ci lambu ji rek yalla ak ñom la quoi waaw. Eh, amon nga idol ci lambu ji amon nga idol ci lambu ji. waaw amoon naa idol ci lambu ji Ibrahima jabe ma nekkon sama idol parce que mom 4 h du matin la ma don yee téléphone 4 h du matin di may liggéeyal lu metti bo duggé ci àll bi wax leen kan mooy Demba Demba Ndong bu nek dina la ko wax fu ñuy jël lamb jël la flam man de waaw. léegi ñuy bëre tey nii kan kan nga joxoon a gis si sa bopp ci ñuy bëre léegi ah. ñii bëri léegi kan nga ci xool gis ci sa bopp carrément. non mbër yi léegi moom benn mbër rek laa gis sama bopp muy Brosse El Bandit waaw muy Brosse gis nga lamb moom rek moom lay seetee sama bopp parce que lamb moom ma si digoon li lamb laaj rek dinaa ko def bu laajee bëre dinaa ko def bu laajee yëngal dinaa ko def lu mu laaj rek dinaa ko def waaw te lamb moom bëriwu ma si woon xarit quoi man bu ma àndoon ak yow yow yow nii tey si biir lamb. mun na la wax ne mun naa la may mais bu ñu jógee si biir lamb ji bu waxee lii rek mënatuma la may ma gaynde jàppoon ñu bu jeexee rek jeex na waaw loolu moo nekkoon sama problème. léegi looy wax combine yi booy yi nga xam ne léegi dañuy combine bu ñu tasee fenn bu ñu tasoon ci oto bu ñu dajee dootuñu bëre la wax ci ñu booyoon. non moom kenn mënul wax ne mun na jeex si lamb mais mun na wàññeeku parce que nekkul ne koo si lamb rek koo may nekkul ne koo gis si lamb rek woo ko téléphone benn jour mun nga koo may non non il faut ñuy bëre ne bu jeexee rek jeex na. bëre mënul dindi dara seen diggante mais ba leen tase fii koy wax ne man mënu ma may tey parce que démb dem daanu daa fa am ñoo xam ne dañoo nekk sama ginnaaw paas ñëw si lamb ji ndax sama sago moo tax mënu ma may tey jàppal ñu bëre bu jeexee rek jeex na loolu mooy lamb. Adja léegi looy wax supporters yi ñi la doon bëgg loo leen di wax. ba léegi dañu may woo di ma wax ne ñëwaatal mais nañu xaar rek maa ngi ñëwaat di leen baax a baax waaw maa ngi ñëw. de Demba. waaw le retour de Ndongo Babou maa ngi ñëwaat. Ah. waaw waaw saison prochaine ou bien. ah saison prochaine da ngay ñëwaat. non dama parce que li li ma gis fii moom. non vraiment doyuma quoi. <laughs> waaw jaajëf merci beaucoup.